ñàkki caaxaan ndaxte daa xëyuloon te gaaye xëy mu dab leen romb leen njëkk leen lu kenn nit mës def Cheikh Abdou Lahat a ko def du nit ku ñuul du ko weex du walli yoo ki yonen lu kenn nit mës def Cheikh Abdou Lahat ko def du nit ku ñuul du ko weex du walli yoo ki loolaa di lan moo di nit ñi ñëpp bàyyi bon te xam ne moo ko fi def bàyyi laat bëggul waxi neen doo dox lu mat ci réew yëpp a ci yam te gisuloo nit ko tox ab Malboro wala Pone mbaa sax mu màndi ci ñollam mbaa mu naan fi sëng mbaa sax mu lak fay pion kay dox dira fële boon Cheikh Abdou Lahat Cheikh Abdou Lahat bale Tuubaa dàq lépp lu bon sellal dëkkam bii ko baayam dénk génni fi xiin Cheikh Abdou Lahat bale Tuubaa dàq lépp lu bon sellal dëkkam bii ko baayam dénk génni fi xiin ak i tama sabar ak tey ci xëyri xalqi laay yon ca la Muhammad yon ca la Muhammad yon ca la Muhammad Muhammadu Rasulullah محمد رسول الله يو ينتبه محمد رسول الله محمد رسول الله نجيب دفني ني نمكل محمد Abdoulaye ku ñu bindi yaa waaye li wér te wóor bis bii nag ñu may ma ma ma dugg nag ci li ma tax a jóg muy sëñ Abdul Ahad ma ni sëñ Abdul Ahad la ñuy fàttali ko tey ci gàttal dañ ñi ku baax yàlla da koy tànnal askan wu baax ñaare yàlla ñi muy yónni ñëpp da leen di jaarale ci askan yu ñëpp di xemmeem mu jaarale leen fa sëñ Abdul Ahad bokk ci mbaakol mbaakol yi nga xam ne ñeena xamoon démb ci alxuraan ak ci dunde seen ñaq ak ci moytandiku moyal ak ci bëgg yàlla ak ci ngor ak ci fulla ak ci fit ak ci jom sëriñ Moodu Astu Jaxate ak soxna Njeng Silla Libaas sëñ Moodu Astu Jaxate meññi soxna Mariama Jaxate ak soxna Faat Jaxate ak soxna Assu Jaxate ak sëñ Abdourahman Jaxate ak sëñ Mbàkke Jaxate moo leen jur ñoom ñëpp ca nu Jaxate waaw dama koo gàttal xam naa ñëpp soxna Mariama Jaxate nu jox ko yaakaari jaam ñi Cheikh Mat Bamba Xaadim Rasul ki raw ñépp mu am ca sëriñ Abdul Ahad sa wéjur wa teg ci sëriñ son yi bu Mbàkke ñoom ñaar ñu bokk lépp ca lislaam ja sa gane àdduna bisu altine lundi tolloog 14 septembre 1914 ama balsasin ñaar fukki fan ak ñett ci weeru korite ci la gane àdduna feeña ci dëkku sëriñ Touba bi sëriñ bi gën a yàgg ci Zaïre fukki at ak juróom sëñ ba njaareem kepp la ko def bañ fa indee sëriñ bi tubaab bi indi ko fa sëñ bi daa bind wax ni raamoo masiri ilaa njurbel la daa lasasin law aayanoo sirama fii sayri maaraamu ñu ne ko lu tax mu ni fa sayru mawtun ala man naazao wa azan wa innahu lee ibqaun wa ikraamu ñi ma indi njaarim bu ñu xamoon teraanga yi ma fi yàlla dencal duñ ma fi indi dina nekk seen dee ba faw ñoom tubaab yi ma fi indi nekk seen perte ba faw nekk sama yëkkatikoo samay teraanga yi ma fiy fekk bokk na ci teraanga yi nga fa fekk sëñ Tuubaa 1914 ama bal sin nga nekk àdduna sëñ Abdul Ahad keroog bi mu ganee àdduna maam Cheikh Ibrahima Fall ko wat buntu yoonu yi ñu leewu ko Serigne Touba tudde ko tur woo xam ni ci lañ ko njëkk a xame muy Abdul Ahad wax ci wax ju rëy Serigne Touba dani tur wi ma ko tudde ku ko mën a wax te waxin wi jub ni nga ko waxee yàqoo ko ëllëg doo tàbbi safara pour mu leer ni ma ko tudde ku ko mën a wax ci sa làmmeñ waxin wu jub ëllëg yàlla du la lakk yàlla may na ma ko man sëñ Tuuba muy Abdul Ahadi la ko tuddee waaw wax ci nag wax ju rëy moom sëñ Tuuba ni sama doom ji feeñ tey am naa ci moom yaakaar ëllëg du tas sama yaakaar li ma bëgg ci sama dëkk bii di Tuuba moo ma koy defal ëllëg du tas sama yaakaar mu mat jàng sëriñ bi boole kook ay rakkam sëriñ saalihu sëriñ bu ñoom la boole ak sëñ Abdou Samad mu sëñ Touba ak seen mbokk ma sëñ Abdoulaye Jaxate mu sëñ Amsatu Jaxate jébbal leen sëriñ Amsatu Jaxate woolu ko ba mu ñëw mu ne ko joxumale sa jarbaat yii ngir aada aada mooy démb jarbaat dañ koy dénk nijaayam mu yar ko kon joxuma la ko ngir aada damaa bëgg alxuraan ji ci yow ak yar bi nga def ko ci sama doom yii soo ko ci manee def baax na soo ko mënul te am ko la ko defal baax na booba am na doomi mbokk mu tudd sëriñ alsaan jaxate sëñ jàmbaar jaxatee ko jur ca meewnu di jàngaleel sëñ amsatu jaxate maa ngi leen di wax tam loo xam ni ñu néew ci murit yee ko xam ndax neexut a xam sëriñ Modou Moustapha mi njëkk wuutu sëriñ bi mook sëñ baaraa bokk lépp Aminata Lo bu guy mint xam ngeen seen wéyjur wu jigéen dafa demal barzak sëriñ Touba yow ñi ñëpp xam nañ ko moo ko demal sëriñ bee ni yàlla ñëw na feek ndogalam daa soxla sama ruu wala bu ma mënta dem maam ko ma demal waaye ruu mënta ñàkk soxna awa bu sa ni maay dem wéyjuru sëñ fallu soxna Aminata Lo ni ko déedéet baal ma demal sëñ Touba ndax yow benn leer nga fii door te man amagum naa fi ñaar muy sëñ Modou Moustapha ak Serigne Bara baal ma dem te su ma demee dénk la sama njaboot sama xel dal na ci maag yow benn lañu sëñ bi ni juboo ngeen ci mu ne waaw mu ne kon sunu borom ñëw naa ndogalam fa sëriñ bi taxawale julli ndox suuf jaar fa laal soxna su tedd soxna Aminata Lo mu wàccib liggéey bi sëñ bi sërmalee ñu koy wax mu ni yëg naa ko bu yàgg dañ koo diisoo woon ruugi laa doon jàllale kon soxna Aminata moo demaloon Serigne Touba ñaari leer la am ak sëriñ Touba sëñ Modou Moustapha ak sëñ Baara soxna Mariama Jaxate mooy ki ko tollantil Serigne Touba 1918 18 laa wax de fekk muy nàmpal Serigne Sonhibou fekk mu am sëñ Abdoul Ahad moom it teg ci Serigne Sonhibou soxna Aminata Lo amoon sëñ Modou Moustapha tekki sëñ Baara di nàmpal sëñ Baara demal Serigne Touba. soxna Mariama Jaxate moom it di nàmpal sëriñ sooy bu rakki sëñ Abdul Ahad yàlla dogal sëñ bi waroon a dem 18 sëriñ Amsatu Jaxate mii nijaayi sëñ Abdul Ahad bokk ak soxna si lépp moom la sëñ bi woo 18 mu ñëw mu ni ko sa mbokk moom laa bëgg nga dem lijjantil ma ko ci tawat ji ndax tawat ji sori na demal nga taxawul ma sa rakk ju jigéen jooji di sama soxna sëñ Amsatu ni ko man de sax am na lu ma ci yàlla wan biig ci gént sëñ bi ni ko géntu lan mu ni ko démb damaa jëkki dégg riir ci gént gi ma dawal sama bët am leer guy bàyyi koo asamaaw ànd ak riir mu foor jëm si ci sa jëmm ci yow sëriñ Touba ma dégg yuuxoo mu ni sëñ Touba fii jóge waaye bi leer gi wàccee ba agsi sa jëmm war laa jël dama ni jees gis soxna Mariama Jaxate mu taxaw fi nga taxawoon leer gi dal ci kawam yow nga puus sëñ Tuubaa xool sëñ Amsatu Jaxate ni ko géntoo dañ laa wan waaye demal nga taxawul ma ko ba suñu borom ñëw ak ndogalam mu taxawu ko teg ca juróomi fan soxna Mariama Jaxate wàcc liggéey kon daa demal sëriñ bi sëriñ bi ni moo soxna na Lo ñoo bokki mbir nañ ko yóbbu dendale leen ci armée lu Tuubaa yi ñu dend ñoom ñaa ndax ñoo bokki mbir ñoo bokki mbir nag li mu feeñal soxna amee Lo ñaar la am ak Serigne Touba sëñ Modou Moustapha Serigne Baara soxna Mariama Jaxate ñaar la am ak Serigne Touba sëñ Abdoul Ahad Serigne Sonyou sëñ Modou Moustapha mi mag toog na xalifa sëñ Touba waaye rakk ji sëñ Baara toogul xalifa sëñ Touba Serigne Abdoul Ahad mi mag fële tamit toog na xalifa Serigne Touba rakk ji sëñ Sonyou bu toogul xalifa sëñ Touba sëñ Baara mi rakk sëñ Modou Moustapha da daan taalifi téere sëñ Sonyou bi mii rakk sëñ Abdoul Ahad da kon loolu lu leer naññ la kon dafa demal ko tedd ki 1918 bi mu tollee ci jàng nag sa wéyjur wa li tax mu yéeme dafa nekk ak i mbokkam buñ leen jàngalee téere yi buñ ci xëyee suba balaa ngoon ñëpp tari sëñ Abdou Lahad du mën a tari déglu leen bu baax bu sëñ Saaliw jëlee mbindam balaa ngoon mu tari bu sëñ sowe bu yendoo ci bindam balaa ngoon mu tari bu sëñ abdulaat jàngee mbind mu ko gën a tuuti du tari sëñ amsatu jaxate jaaxle dem ci sëriñ Touba ni ko mbàkke de fere yi ma jox njaboot gi ma jox muy say doom ñu nga ca sama loxo may jéem sama kem kattan ngir ñu wattu téere borom bi waaye ñoom ñëpp su ma leen bindalee su ma ci xëyee balaa balaa yoor yoor di jot ñu tari ki ñuy wax sëñ abdul nag dina ci xëy ba timis du mën a tari dara su ma xayaatee baa ma ko du tari daa mel ni soxla woon na ay ñaan ak ndimbal sëñ Tuubaa ni sàllaaw moos bàyyil ma dimbali ko sama bopp sëñ moos kon bàyyil ma dimbalil ko sama bopp sëriñ Tuubaa ñetti kaala yu ñoor la daan def ñetti kaala sëñ bi teggi genn kaala gi ci teewaayu sëñ am sot teggi deuxième kaala teggi troisième kawar gi feeñ sëq lool ak jib gi sëriñ Tuubaa rocc genn kaalaam ci biir jox ko sëñ Amsatu Jaxate ni ko soo demee nañ ko ko wàññil ba mu tolloo ak moom mu def ko mbubb di ko sol dinaa ko dimbali dina mokkal alxuraan na jege si sëñ Abdoulaat jege si sëñ Touba sëñ bi ni ko ŋaal mu ŋaang mu ni fa innama yasarnaahu bi lisaanika tëf fa innama yasarnaahu bi lisaanika tëf fa innama yasarnaahu bi lisaanika tëf la yàlla waxoon yenant bi dinañ la yombalal alxuraan ci sa làmmiñ tëf tëf sëñ Abdoulaat nee na bañ ko bindalaatee ca bis boobee lañ ko bindal laata jant bi so mokkal na ko bay laaj bindal sëñ Abdul Ahad nee na ba ma sëriñ bi ñaanalee ca laa jóge ku ma nuyooti su ma xëyee suba toog nit nuyu ma ma nuyoonteeg moom mu ni ma diw laa tudd sama nday tudd diw sama baay tudd diw suñ toogaatee at at du ma fàtte ka ma nuyu woon ak turu ndayam ak baayam dëkk bi mu jógee dinaa toogaat at te duma fàtte ki ma nuyu woon duma fàtte turu ndayam ak turu baayam su ma xëyee suba ba jant bi so ñi ma nuyu ci bis bépp ma xam seen tur seen turu nday ak baay duma ko fàtte fii at buñ ma jaaraatee ma nuyu leen daal ni man sëñ Abdoul Ahad ba ma sëriñ Tuubaa ñaanale ni ma tëf calaa laa noppeetee gis dara di ko fàtte wala ma dégg dara di ko fàtte man sëñ Abdoul Ahad te yéen ñëpp xam ngeen bi ma seeni asalaamaaleykum ba Sénégal ku ne jël sa poste rajo di ko déglu la muy wax danga xam ni alxuraan dañ ko koo firil chrétiens yi sax jërëjëf jërëjëf ñang kii ma ca géejawaay jërëjëf ñang wallaay moo ma yar ca géejawaay ah bu ma seeni yi sax jël seen poste rajo ni ah le marabout mouride est en train de parler il va faire un discours exceptionnel je veux l'écouter ñëpp looloo amoon ci réew mii suy wax ni muy defee alxuraan léeg-léeg mu ni an ka bóota ko wax waaye boo demee ca Zumar moo ko tontu Baqara waxoon na fële Ali Imran wax ca nangam Yuusufa tontu ko loolu xam ngeen ni taw féex ju ko sëñ bi defal la sëñ Abdou li gën a yéeme sëñ Abdou bi mu noppee gis sëriñ Touba ndax wax naa leen sëñ Touba bi muy génn àdduna 27 sëñ Abdou fukki at ak ñett la sëñ Abdoulaye Jaxate nee na maag moo bokk benn lal bu ñu fanaan ñu tëdd ci ba xaaja guddi mu ni ma pëkk pëkk ma jug boobu fukki at ak ñett la am ma fukki at ak ñeent mu ni ma pëkk pëkk ma jug mu ni waa ji Abdoulaye Jaxate Serigne Touba wàcc na liggéey te ñoo bokk lal fanaan nee na ma xool ko ni ko sëriñ Touba man mu ni Serigne bu mag bi ñibbisi na Touba ma ne ko noo ko xamee mu ni xetam moo ma xeeñ ñëw na Touba ni ko sàllaaw fii ñu tëdd nelaw man ak yow dem naa ba fekke biñ koy rob sëñ Touba mu ngi Touba. mu ni ban demee vérifier ko noonu la demee sëñ Abdoulaye Jaxate ko nettali boppam mu sëñ Amsatu Jaxate bind na ci moom xasida temps bii ma ko dul may kon mu teel a am ci sëñ beeg jagle gi lu mu teele la bi mu ko noppee gis mu jaayanteeg magam sëñ Modou Moustapha sëñ Modou Moustapha jël ko fekk boobu mokkal na alxuraan ba bindal ko sëriñ bi sëñ Amsatu boole kaamilam ak kaamilu sëñ Abdoulaye Jaxate ak kaamilu sëñ Abdou Samad ak kaamilu Serigne saaliwu ak kaamilu Serigne Soy bu jox ko sëñ Modou Moustapha ca Tindoo di usnul maab ni ko sëñ Touba waxoon sunu noppee ma jox ko yaay sëñ Touba mu jël sëñ Abdoulaat jox ko sëñ Ahmadou Mokhtar Dieng ca Goyaar mu koy jàngal mu jàng fa diir sàkku ñu yóbbu leen ci sëñ Abibu Mbàkke imaam mu jàngal leen mu dem ba 1932 sëñ Abdoulaat am 18 ans magam ja ni ko demal sanc ndax dama lay wax sikku sëriñ sëñ Tuubaa ko waxoon sikku sëriñ yii la sëriñ Tuubaa nee na sëriñ bu jàngul tilim sa baay am xam-xam lool nga toog wuutu ko mënoo jàng sax faatiye bu daje dangay tilim sëriñ bu jàngul tilim la sëñ Tuubaa wax bu sancul réer sama bàyyee sanc fii sama maam rek yow foo sanc bu sancul réer bu liggéeyul loof te mu ngi gën a leer bu liggéeyul rek loof ndax ku ko war yeb dina ko yeb ndax da naan maa ko yoral dara bu jaxasook buur yàqule sëñ Tuubaa ko waxoon sëriñ bu jàngul tilim bu sancul réer bu liggéeyul loof bu jaxaseeg buur buur yàqule moo tax sëñ Abdoulaye teel a xam yooyu bàyyi ko xel 1932 18 ans magam jox ko ndigal mu dem sanc ca daaru Rahman këru boppam ne fa 1935 mu sant sanc fu ñuy wax dem ñaan di dëkkam ne fa 1936 mu sanc gelongal ci ndigalu sëñ Modou Moustapha 1944 mu sanc daaru salaam bukki barga 45 sëñ Modou Moustapha génn àdduna mu yeesalaat njébbalam ci sëñ fallu magam xanaa xamoo sëriñ Fallou rek la sëñ Abdoulaat gëmoon bëgg ko lool ki mu ko tuddee 1954 la la gane àdduna soxna Xadi baa ko jur hmm? soxna Xadi baa ko jur 54 la gane àdduna mu tuddee ko sëñ Fallou magam ànd nañ ñoom ñaar sëñ Fallou dox jiitu sëñ Abdoulaye topp ci ginnaawam kaal sëñ Fallou rot sëñ Abdoulaye for kaala gi wékkaat ko sëñ Fallou sëñ Fallou ne gees ni ko waaw bu jógee fii ni nga ko fore rek foofu rek bu xilaafa gi jógee fii foofu rek boobu la ñëpp xam ne dina nekk Serigne mu doyloo woon liggéey te rëy teraanga nee na teraanga dëgg ki ko xam boo ñëwee këram war a añ raxasu ci la teraangay commencé raxasu mi daa war a bari nee na ñaare ko ko la gane si nga jox ko raxasu mu tuuti day wane ni xamoo teraanga da koy jox ndox ndox mu baree bari mu raxasu mu xam ne lu rëy rëy lañ koy tegal mu ëppoon ñëpp teraanga nekkoon ku ñu teela a bàyyiloo xel dimbalee sëñ Abdoulaat nee na nit bu la xëyee suba teel seet si la yaakaar la ci soxla ne la biir ni dalaa fanaanoo sëñ Abdoulaat nee nit bu la soxlaa xëy la suba teel sa kër di la seet si ci soxla ne la bir ni yow la fanaanoo guddi gépp mu ngi xalaat su ma xëyee di la ñaanal ñett yàlla naa fa fekk ki may seeti dina la ko ñaanal yàlla naa ko fekk mu yore dala koy ñaanal yàlla na ma mën a jox ñu gisante kon warta ñëw nga neenal ko neen daal wax ni ndax xàmmee ngeen faj aajo ak gaañ aajo loolu nag nday yëpp ko war a déglu sëñ Abdoulaat ne ndax xàmmee ngeen faj aajo ak gaañ aajo ngi ne ko Mbàkke de xamuñu ko xanaa nga dimbali ci mu ni gaañ aajo mooy nit teg gi ñëpp ñëw ci yow ne dama am soxla junni gaañ aajo mooy nit teg gi ñëpp ñëw ba ci yow ne la dama am soxla junni sëñ Abdoulaat nee na nga jox ko téeméeri dërëm ni ko maa ko ci dawal da ngaa gaañ aajo nee na waaye nag faj aajo mooy nit ñëw ci yow ñu la damaa soxla junni nga jox ko ñaari junni faj nga aajo moo gënoon a dàq joxe ci ku mbokkal jamono sëñ Abdoulaat fàttaliku sëñ Abdoulaat mooy fàttaliku dëgg dëgg rek a ko ñor ak koo mën a doon loo ko jege jege boo wàccee dëgg mu wax la ko yéen ñëpp fekke ngeen Senghor président senegal le premier agrégé en grammaire française Léopold Sédar Senghor di le président de tous les sénégalais wax ak moom ba nopp nar cee génn mu ni ko Léopold da ngay kàcc kookoy sëñ Abdoulaye Senghor di jàkk di ko xool mu ne ko li ma gën a bañ mooy wax di ci deñ yaa ma wax lii dém wax lii tey waxoo dëgg dangay ngay kàcc kookoy sëñ Abdoulaye moo nekkoon jëmm joo xam ni bëggul daray caaxaan daray caaxaan am na góor gu ñëw ba ci moom pàkkar ci fekk ko belal pàkkar ci fecc feccaat sëñ Abdoulaat ni jàkk di ko xool ba mu àggal mu ne ko li nga def loo ci jublu mu ne ko xam ne yaay sëriñ Touba ma lay bégal rek mu ne ko waa jii tuubal boo dee ba def ñetti fan ci bàmmeel di nga xam ne mag du fo mag jaamu yàlla rek ko war waaw caaxaan bu ko ci dara waa ji boo deewee ba def ñetti fan ci bàmmeel da nga xam ni mag lu mu def dul jaamu yàlla wàcc na ko mag du fo mag du caaxaan kooku mooy sëñ Abdul mu andi ci Touba loo xam ni moo ko njëkk a def mooy lépp luy caaxaan sëñ Abdou Lahad da ko génne Touba yéen ñëpp fekke ngeen 1980 la jël lettre signé ak rakkam ya sëñ Abdoul Khadr sëriñ Saliou sëriñ bu sëñ Mourtada ñoom ñëpp signé mu ne carte xaalis bu mu dugg ci dëkk bi football bu mu fi am baar bu ñuy naane sàngara bu mu fi am loterie bu mu fi am tëgg bu fi am fecc bu fi am carte bu mu fi am caaxaan du fi am daal ni sama bakkan laa ci gar waaw waaw waaw waaw ana Philippe nu ko Philippe xaj laa ci xam dama caa àggul waaw xam naa ko waaw waaw loolu la ko wax da di ko ana Philippe mu ne Philippe Maguilène doomu Senghor la woon dafa accidente sur la route de Yoff en 80 moo tax Senghor bind les élégies de Philippe Maguilen moom la ciy jooy élégie mooy un poème qu'on pour se plaindre d'une perte waaw xam naa ko sax bu baax waaye ma caa àggul woon maa ngi woon fan ah man dafa taxawal dafa woo njabootu sëñ Touba gépp bind lettre ni carte du fi am naan sàngara du fi am gis nga bi muy tere sax bi muy tere am na benn naaru libaane bu tudd kasati waaw ca Mbàkke Bawol waaw li may wax source yu leer laay wax man ba mu teree danit mënta bàyyi day jaay kuutali jaay li muy jaay sëñ Abdoulaye defaat discours ni waaw am na lu ma fi tere woon am na ngóor su dëgër bopp ne du bàyyi li may tere léegi nag bëggoon kuy murit te li ma wax doy la te nga bëgg sëñ Tuubaa gëm ko muy dëgg nañ ko baraawoo ñun ñëpp wan ko ginnaaw bu fa kenn jëndeeti mburu bu kenn soxla daraam ndax daa teggi sama ndigal waaw dañ ko embargo ñëpp mujj tëj ba bitig ba daal di perte ca Mbàkke Bawol sëñ Abdou mu tere carte xaalis gis ngeen ni mu mel tey te Touba doo ko fa dégg tere football ak caaxaan doo ko dégg Touba sëñ Abdou tere naan sàngara ak baar doo ko dégg Touba tere lépp luy hôtel ak doo ko dégg Touba tere lépp luy caaxaan ak tëgg ak fecc ak yëpp da ko interdire bi Touba ni suma woo nag gendarmerie ñi lañ dugg ci dëkk bi génneel ma ñi ko fiy def bi gendarmerie ñëwee ànd ak i xaj ay dawkat ay chien ay xaj ñu daal ni ah lii de moo ko njëkk def ci dëkku sëñ Touba bi moom sëñ Abdoulaye ay ndaw gat ay xaj ci dëkku sëñ Tuubaa bu lab bu sell bii mu ne waa dégg naa leen wax waaye xaj yi dañuy wër seen moroomu xaj yi ci biir ngir génn leen nga xam ni hakim la woon loo mës a wax ci la lay tontoo moom sëñ Abdou Lahad ndax déggam déggam boroomam mu nekk mu defoon koo xam ni gëmam sëñ Tuubaa ak jeex ci sëñ Tuubaa amul ci ñaar fexe ba andil ñu sunu modèle boo xam ni mooy suñu identité culturelle xool ni colu bàyyilaat gi ba tey jamono mënu ko fàtte ah colu bàyyi laat gii ñuy sol sëñ Abdoulaat ko njëkk imposé ñu koy sol xoolee ni mu noppalee te féex sol sa caaya ju ne yàmbalang dóor sa bàyyi laat ngelaw luy jaar fu nekk ak a gën a noppale soo bëggee jaamu yàlla mu gën a gaaw gën a complet ci yow doo am benn coono sëñ Abdoulaat indil na ko xam ni Touba mënta ñàkk ay post de police ak ma gendarmerie mu taxawal ko xam ni marché mënta ñàkk marché bi rëy am dimension mu yokkaat marché ocase mu ngi ci def 330 millions en 1977 le 24 mars la woon mu def ci 330 millions ñetti téeméeri million ak fanweer mu def ko ci yokkum yokkum marché bi taxawal forage yi ba tey ñu ngi am problème ndox xamoon na ko visionnaire la mu taxawal forage yi yéemu ci mu taxawal kër bi mag moom kër mag moom mooy ku mag ci njabootu sëñ Tuubaa yilif leen war nga am kër goo xam ne soo amee gan fa la ngeen di recevoir mu taxawal ko ci transparence jàngal na la bonne gouvernance la transparence à tous les dirigeants lan la def dañi kër gi maay sëriñ Tuubaa maa ko taxawal waaye moomuma ko ku magati ëllëg rek yaa ko yilif damay wut ay témoins woolu sëñ seex jaxate sëriñ seex jaxate doomi sëñ am satu jaxate la woolu sëñ Amsatu mbakke mu maam Cerno imam woolu greffier bu njaaree mu ngi doon bayti faati dem woolu sëñ Moodu Maamun ñang mu sëñ Afe ñang di secrétaire particulier mu woo leen ñoom ñeent jël leen témoin ni kër gii ma defaral sëñ tuubaaku ku mag yaa koy ilif su ma wàccoon liggéey ngeen fekk ci përngelu saabu mu ma doon jëfandikoo savon bu ma ko kenn yóbbu sama kër nañ ko fi tegaat kii wuutu njabootu sëñ Touba jël përngalu saabu bi loolu mooy transparence yi sëñ Abdou Lahad xamoon na ni daaray kaamil mënta ñàkk sëñ Touba ni mu def ak alxuraan faw mu am këruk alxuraan am tam bibliothèque boo xam ne lu waay di gëstu ci xam-xam man ko faa gëstu ji mu taxawal une bibliothèque boo xam ni amul benn téere booy gëstu ji man nag professeur laa man miy wax professeur mooy wax kon li may xam naa ko te professeur laa boo xam ni minimum je parle huit langues internationales donc alo fayam ci man te jàngale naa ci école yu mag kon xam naa lan mooy gëstu ak lan mooy bibliothèque mu defar bibliothèque boo xam ni bu modèle la bu moderne bu tolloog jamono téere boo doon soxla ci diggante téere arab yi moo xam dangay soxla téere yu jëm ci fiq lu jëm ci balaaxa lu jëm ci bayaan lu jëm ci naxwu lu jëm ci luxa lu jëm ci siira lu jëm ci matxu lu jëm ci salaawaat yëpp mu ranger ko def ko ay pavillon ci biir Touba loolu liggéey sëñ Abdou Lahad la njabootu sëriñ Touba waaye bi mu toogee dafa wax ni ñi ma bokkal sama mbokk yi maa ngi tere kenn ku toog fii ñëw di ma wax ci kenn dara luy sikkam kuy diriger noonu lay mel bëggumaa dégg sama nopp lu dul lu baax bu ma kenn wax diw am na sikk samay sikk doy na ma bu ma wax kenn wax sikku jàmbur kon dégagé na ñëpp ba ay mbokkam kenn du ko ci mën a dugal bëgg leen bëggin woo xam ni rakkam sëriñ son yi bu day am na bis mu ni njabootu sëñ son yi bu ku ci bëggati mbirum àdduna looy bëgg a soxla mu jafe muy xaalis di ko laaj rikk waaye bu leen ko wax sama rakk ji sama rakk ji nopp yi yàlla képp la bëgg a dégg ku ci am soxla àdduna ñëwal wax ko man mii maay seen baay ma fajal ko ko diggam ak sëriñ saaliwu xam ngeen ni moo tabaxal sëñ saaliwu këram moo ko këram te booba alaaji ibrahima ñang bu mbuur la àndal alaaji ibrahima ñang moo jur demba sàll ñaa bi jiite woon jaraaf jur ñoom saaliwu ñang ak lamin ñang bi jiite woon chambre de commerce bu dakar ak ñoom maysa ñang xam naa famille boobu daanaa fa def conférence ci mbuur tefes guddi alaaji ibrahima ñang ànd ak sëñ abdoulaat dem ci kër sëñ saaliwu booba sëñ saaliwu kër gi soo ci taxawee sa bët day jël ci biti ngir kër gi ni mu mel ay bant rek ay sàkket yu yu dëng rek day sànn sëñ Abdoulaye toog ne alaaji Ibrahima ña ngi di wax ak sëñ Saaliwu ba laaj sëñ Saaliwu ni ko ndax sa kër gi doo ko ne defaraat ko sëñ Saaliwu ni ko hmm, sàllaaw bëgg nañ ko waaye xam naa dañuy dem ba jamono soppeeku bu ñu ko amee dinañ ko defar ba ko sëñ Abdoulaye déggee ba ñu génnee dañ ne alaaji Ibrahima ñang tey dama lay neexal ndax fexe nga ba ma dégg ni sëñ Saaliwu am na lu mu bëgg ma dégg ko ca la ay maçon ñu yóbbu fer yóbbu béton yóbbu ciment suuf mu ni bu ñu ko defaralu kër gi daal dëddu àdduna ëllëg dinañ ko layoo nañ defar kër gi kooku mooy sëñ Abdou ci ay mbokkam xam ngeen ni doomam soxna may Mbàkke mu sëñ Abdou Lahad da koo may sëñ Cheikh Jaxate mbokkam mu ne fa di fa liggéey ñoom nag xam nañ ñi sëñ Amsatu Jaxate ak sëñ Mbàkke Jaxate daa nañu wat sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa daa ne jox bopp boppam ñu koy wat di weewi yenn kawar ki sëñ Mbàkke Jaxate nee na am na bis sëñ Tuubaa woo ma suba maa ko wat bisu gaawu ndax sëñ Tuubaa li ëpp gaawu lay watu gaawu sëñ Mañaaw Silla mooy samedi sëñ Mañaaw Silla ñëwoon ci moom ni ko Mbàkke damaa bëgg e waaye bu ñu séddalewul rek Mbàkke dama bëgg nga wax ma bis bu nekk la ca gën ma koy def Mbàkke dama bëgg nga wax ma bis bu nekk la ca gën ma koy def Serigne Touba ni dee leen tukki altine dee leen tukki altine di tàmbali talaata di daloo àllarba daloo mooy sollu bees àllarba tukki dee leen tukki altine di tàmbali lu ngeen di dugg talaata di daloo àllarba di foot alxamis di ñaan lu bari ajjuma di watu samedi tey sanc dimanche sëñ Tuubaa waxoon lool ah ma waxaat ko sëñ Mañaaw Silla moo ñëw ci sëriñ Tuubaa ni ko Mbàkke dama bëggoon bis bu nekk nga wax ma la ca gën ma ko cay def sëñ Tuubaa ni ko Mañaaw ni nga toll ci yàlla xamoo woon loolu mu ni ko am na lu ma xamoon waaye lu ma mën a xam ba ma ñëwee ci yow xamatuma dara ndax lu ma xame ci yow gën fu ma xame feneen mu ni ko sikkuwul de kon dee leen tukki altine lundi da ngeen koy tukki bu ngeen di tukki da ngeen ko jàpp lundi di ko def altine dee leen tàmbali lu ngeen di dugg talaata dee leen di daloo àllarba di fóot alxamis di ñaan aljuma di watu samedi tey sañ ci dimanche ok waaw ah, jërëjëf jërëjëf jong léegi rek d'ici 15 minutes jote waaw ci 10 minutes maximum la waxoon kon sëñ Mbàkke Jaxate bokk na ci ñi daan wat sëriñ Tuuba nee na sëñ bi woo na ko bis ni ko kaay nga wat na mu wat sëriñ bi ba àggal sëñ bi jël kawaru boppam <laughs> kooku raw na de sëñ bi jël kawaru boppam ak guro gum doon yëy suba la ko wat sëñ bi fas guro gi yàbbitu guro gi la sëñ bi fas ak kawar gi ci boppam boole ko fas ci morso ni ko sëñ Mbàkke Jaxate lii jox naa la ko hëddiyee hëza xayrun laka mina dunyaa na maa fii asalaamaaleykum damaa bëgg ñu ñëw jox ko ab addi sëñ doon wax sa maama rey gaynde gi def nga loo mënut lépp loolul fay nañ ñëw jox ko sëñ Abdoulaye waaye ñëw leen jox ko addi sëñ na ñëpp ñëw bàyyiwuñ kenn de noo ñaan ñaanal ci barkeb Serigne Abdou Lahad ku ko jox addiya yal na yàlla faj aajo koo gis ci àdduna aajo ju fajo la bëgg na ñëpp ñoo jox ko addiya Serigne Abdou Lahad bisimilah Mbàkke bisimilah nañ ñëw rek moom waaw kay bisimilah ñoo leen jox ko rek waaw bisimilah nungul jox ko ñoo leen jox ko addiya Serigne Abdou Lahad jot na de bisimilah te eh, nungul ma nungul ma nungul ma bisimilah Adja Soda Mama bisimilah jërë ngeen jëf leen jox ko addiya yaay Diop alali sëñ Baara ñëw leen ah, jot na de bisimilah faal faal faal faal barakallah jigéen ñi fu ñu dajee góor ñi doo leen di selo bisimilah leen jox ko rek waaw. ah li muy wax raar na lool de man de maa ngi a dégg tey yal na yàlla guddal fan wi rek man na duma ci yàgg dama koy jox mu wéyal ngeen kon ne di ñëw rek bisimilah. jërëjëf man di Serigne Mbacke Jaxate dafa wat sëriñ bi sëriñ bi jël kawar gi mboole ko guro gu mu yëy ba yàbbi ko jox ko ni ko na fonk lii ma la jox moo gën ci yow àdduna ak li ci biiram sëñ Mbàkke Jaxate nee na man mi ko wat yoor yoor bettaat naa ko timis kawar gi sëq ba àgg ci mbagg yi ci benn bis bi ma ko wate kon sëñ bi jërëjëf jërëjëf ngi ziyaar bu baax sama soppe jërëjëf kon sëriñ bi sëñ Abdoulaat loolu da koo bàyyi woon xel ndax li sëñ Amsatu Jaxate ak mbokkam ma sëñ Mbàkke Jaxate daan wat sëriñ bi moo tax ñoom it doomi sëñ Amsatu Jaxate di leen wat mooy sëñ Seex Jaxate sëñ Seex Jaxate daana wat sëñ Saaliwu ndax ni baayam daan wate seen wéejuru am ci bis nag sëñ Saaliwu ñëw fa yoor sëñ Saaliwu waaw jërëjëf jërëjëf am ci benn yoor-yoor waaw am ci benn yoor-yoor sëñ Saaliwu ñëw ci kër gi ni sëñ Seex Jaxate kaay nga wat ma ndax sa baay baa ko daan defal sunu baay sëriñ Seex Jaxate wat sëñ Saaliwu ba àggal sëñ Saaliwu tooñ soxna May sa mbokk mu baax mi sëñ Saaliwu tooñ ko ni ko ndax xéewalu ndaw ku ndaay am na ci kër gi pour ma añ soxna may ni ko am na fi kay mbàkke xaar ñu indi laañ bi fekk boobu ndab li sëñ abdulaat war a añee moom la ñu yekkoon muy door a sotti di ceeb mu daal di na ko jox sëñ saaliwu rek ndax ñoom ñaar benn lañ indil ko sëñ saaliwu sëñ saaliwu tibb ci ñetti tibb barke lu tëjaat ndab li soxna may fas ndab li ba mu dëgër mu yóbbul ko sëriñ sëñ sëñ abdulahaat ba mu agsee ni ko mbàkke nag ndab li am na lu ci nuru lu ñu laal waaye li ci laal sa rakk jaafatee woon sëñ saaliwu moo ci doon barkelu sëñ Abdoulaat ni ko nga ni sëñ Saliou xéwlu na fii mu ni ko waaw sëñ Abdoulaat làmb poosam juróom fukki junni ni ko maala la ko terale yow mi fexe ba mus desu sëñ Saliou kon seen kóllëre gi ak seen jàppante ba benn lañu woon ñoom ñëpp ci seenu mbokk yàlla na nañu yàlla fayal sëñ Abdoulahat kon fàttaliku ko daal mooy fàttaliku njub fàttaliku xam-xam fàttaliku bëgg sëñ Touba fàttaliku dëggu fàttaliku liggéey ndax dafa liggéeyal Touba le bâtisseur lañ ko daan tudde le véridique nga xam ne léppam ci dëgg la nekkoon fàttaliku dundal tarixa yépp nag ndax bu leen fàtte ni moo njëkk a wax ni tiijaan ak xaadir ak laayeen ak murit xasante mu ngi mel ni ñett ñu bokk ndey ak baay kii xees kii ñuul kii xeereer kii bëgg a tam kii bëgg bàyyi ki ci des koo ci tam tam nga ki ci des kon wane woon na ni ñun problème mu tarixa yi xew mu mësu cee nekk te loolu defe naa sëñ Abdou sëñ Abdoul Aziz Dabakh leeral na ko ndax bind la ci moom xasida man mokkal naa xasida ga ba muy wax ni min nii ilab nil aarifi sunni yi waa eh, xadimi shafiil waral mbakki yi najli habibillahi abdul ahadi waari si sirrihi bila taradudi xasida yu sëñ abdul aziz dabaax abdul ahad mu ni maa ngi bind jëme ci koo xam ne léppam sunna la yanant bi maa ngi jëme ci ko xam ne baayam lépp sunna la ku xamoon yàlla la di Seex Ahmadu Bamba mi ko meññ te liggéeykatu yenantu bi alayhi salaatu wasalaam moom mi nga xam ni moo doon sirru baayam sëñ tuubaa moom sëñ Abdou Lahad loolu sëñ Abdou Aziz baax moo ko seereel pour wane kon ni këru diine yëpp la am lan teloon bu sëñ Ablaye Thiaw laay mësee ñëw gis ngeen da koy dalal dalu boppam jox ko discours mu def ko ci màggal gi loolu fekk nañu fi këru diine yëpp mu am lanteek ñoom bëgganteek ñoom kon dund gi fi dund di 75 ans di dund wéy juram sëñ Touba lépp chargé na ko ba mu fees ak yàlla boroomam baatin ba la muy bëri bëri bëri ak nite la indi ak nite la jëfandikoo dëgg liggéey taxawu askan wi kon yàlla nu yàlla fayal sëñ Abdou Lahad ajaratu kit ne nu ngi lay sant di la gërëm bu baax bis bi bisu barkelu la ah te toogaay bi yàgg na te kilifa yaa ngi toog di santaat alaaji Idrissa caam bu baax te di ko ñaanal sunu borom guddal fanam wéral ay cëram yàggal ko lool sunu boroom yàggal la fi di nuyu mbokk yëpp di nuyu soppe yëpp di nuyu jàngkat yépp ah, di nuyu ñin fi fekk ñëpp ak ñu ñu fi fekk yàlla yàlla faj aajo yëpp ma joxe ñaan waaw selal na alxuraan bégum seex bamba yàllaaw seex abdulaat ku mu jamonool jëfal na la boo ko yëgeeg boo ko yëgul jëriñ na la Cheikh Abdoul Ahad ku mu jamonool jëfal na la boo ko yëgeeg boo ko yëgul jariñ nala la génne na seytaane biir Tuuba tànkam dootu fa jaar salal na alxuraan mbégum Cheikh Bamba yàllaaw Cheikh Abdoul Ahad ku mu jamonool jëfal na la boo ko yëgeeg boo ko yëgul jariñ na salli ala xayri nabi xaadal wara bila dabi yaa man kafaani wa dabi bijaayi wala mami yaa man ladayi amili ani alal muzammili salli bi kulli kummali ma al jamiil mami yaa man liman xat wa faqa salli ala man xulliqa wa xalqa fa xulluqa kal xalqi wal tusalli al maqaami مقام المرتدى أنس في خدمة وكاسانس أراني domi mam bu soo dara jaal nit ku ñuul ba ngeen na di ko naaw bi dan nanu woon xetu jàmm du nu naaw ndax tubaab bi jàppe nu ay esclave da koy toroxal der bu ñuul booba ba tey xadimay ki leen dimbali xama jëy sasin ba nu jël se sëriñ bi jàppe ko nit bam demee ca géej gala semmal tubaab bi xam ne du nit jàmm jaangi nit dafa wal xadimul xadim gañana doomi jaara moo ko waral waye mel ni mam jafe na na jigéen ñi rey jaara góor ñi sant mam jaara mami Serigne Fallou Bara